sëriñ bi nee na ñi ngi sant sunu boroom bu baax a baax a baax a baax di sant boroom liggéey bu rëy bii dundam gépp mu nekk diggante yàlla ak yonent bi di ko sant bu baax a baax ñi ngi sant mboolem kilifa yi diine yi nga xam ne teew si nañ fi ak ñi nga xam ne amoon nañ yéeney teew si fi wala ñu yónnee wala ñu am ngànt ñu ngi sant ñépp mboolem bokki jullit yi mboolem bokki taalib yi gis nañ taxawaay bi bu baax a baax a baax kilifa ak diine gum mën a doon kilifa diine gum mën a doon. na ko muy xam na ne kenn jiituwu ko ca. loolu ñoom ñëpp xam nañ ko wane nañ ko. di sant bokki jullit yëpp. kenn ku ne góor ak jigéen mag ak ndaw. kenn ku ne jàpp na ne mbir mi sa mbirum bopp la. noo ngi gën sant nag ci yàlla. dégloo leen ndigal li mooy dégloo. noo ngi gën a sant sunu borom bu baax ci jotaay ñaari kilifa yii toog ci bokk ak ñun liggéeyu farata sunu borom ji nga xam ne moom la ñu bokk ñoom ñaar nag. mën nañoo taxawal réew mi yépp kii day taxaw taxawaayu waajur kii day taxaw taxawaayu doom ñoom ñaar day mel ni taxawal nañ réew mi yépp noo ngi leen di sant bu baax di leen sant ji jataay bii nu yàlla boole noo ngi gërëm bu baax ñoom nag ñoom ñaar nag la ñuy gën ñaan suñu borom ñoom ñaar yàlla yéwénal seen mbir yëpp yéwénal seen diggante bu baax a baax bu ko defee mbirum réew mépp day yéwén ñoom ñoo ñu ngi leen ñu ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp ñoom ñu jox yàlla njukkal sunu borom teral na leen ba noppi. lu leneen lu ñu gis lu leen neexut ci seen bopp loola dogalu sunu boroom la sunu borom jaamam bu mu cëral in fokk mu nattu la kon luñ gis lu leen naqari ci seen bopp rek séquñu ko yàlla moo ko dox ci defaram waaye yàqul fowul juumul te mooy def mooy dindi kon ñu ngi leen di sant bu baax ñoom ñaar ci jotaay bi. di leen ñaan ci suñu borom yàlla def liñ bëgg ci ñoom. réew mi gën a defaroo ci ñoom. ñu ngi leen di ñaan ñoom ci seen bopp itam. ñu delloo yàlla njukkal. sant ko ci lim leen defal. nañu muñ ci lim leen teg. te xam ne seen njëriñ képp lay doon. waaye nañ ko wëlbati ñoom ñëpp jëf ko muy yéene ju rafet muy jëf ju baax loolu mooy natt bi nu yàlla natt nun ñëpp tabaaraka alladi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir moom mi nga xam ne moo bind dund ak dee ngir mu nattu leen ci dund googu ba ba sunu borom sàkkee dund sàkk dee lim liñ ci wax leer na nañ ñi defal nu ko lu dul defal nattoo rek di seetlu li ci ku ci gën a rafet jëf loolu leer na nañ laay jooju doyoon na sëkk alxuraan ay junni junniy laaj waaye laay jooju doyoon na sëkk nañ ko dégg bu baax te jëfandikoo ko jërë ngeen jëf ñi ngi sant bu baax a baax a baax. jëwriñ nee na nee bi nee na Pape mii nee na ñi ngi koy sant di ko yónnee ak cant nee na mën naa fab cantam jaarale ko ci Pape Malick mii mu jëm ci kilifay diine yépp ta nee na tabaarakallaahu dara ump ñu ci moom xam nan ko bu baax ba muy gën di ndaw laa ko xamoon ba léegi si doxin wu rafet rek laa xam ci moom loolu rek kon niñ koy sant bu baax niñ koy jot a mu ne Pape Malick nee na ne Pape Malick nee dafa am lu bëgg sëñ bi ñaan ko mbokk yi fi daje di bokki deret kenn ku ne. yéene bi nga am ci sa moroom. yéene bi nga am ci sa moroom. fi daje. mbokki taalibe fi daje. kenn ku yéene bu rafet bi nga am ci sa moroom. yal nay seen njëggal yowmal qiyaama. yal nay seen njëggal yowmal qiyaama. yàlla dara. yàlla yàlla topp dara. mën na ko ci barke yonent bi. mën na ko man ci barke mag ñi waaw kon sëñ bi gisaakulaa waaw waaw jawri nit nee na sëñ Mbàkke yu fay nee na ñi ngi gërëm Aly nguy njaay mi nga xam ne mooy ministre de l'intérieur bu baax ci taxaw li ko président santoon lépp def na ko lépp mën na waaw waaw ah, man si président rek laa bëgg mu dem ci def ana Kande mu ne Kande ak maanaam président day dellu day dem ci néeg waaw moom mi dama bëgg mu dem ci néeg muy nëkk fële muy nëkk waaw ah. daf ne sëriñ bi daf ne daf ne dafa bëgg nga dellu ci dégg dafa ni daf la sant déglu rek li mu la waxoon ci biir ni yaay bàyyu réew mi kii mooy doomu réew mi nee na loolu rek lay wax ni yéen ñaar ñëpp war ngeen a sant yàlla te mi ngi leen di ñaanal di leen bàyyi xel loolu rek la wax en résumé <laughs> rajo bi rajo bi moo moo doy waar moo baax. rajo bi ñëw ànd kenn Sénégal ngi un ancien président un président di kadarin nafa li xayril بأنني قديم ذي المدينة برأ دخلت هند الجلوى وسان لي هما يجر البلوى الجاه لم ينوني عند البور المورخات داهن لقمر أو دواء فاسقا يسر